parce que Sénégal gépp nag ñi ngi ñuy déglu kon lii ñu commencé yàlla nañ ci yàlla may ndam yàlla na yàlla nangu ñaan yëpp Amadou jërëjëf du ñoo àndoon ak yow di dem élection présidentielle waaye dama gëm ni rek yàlla moo nanguwul parce que bu ci yàlla àndoon kenn du ko mën a kenn du ko mën a dog waaye nag nit ki lu nekkul sa wërsëg mu dem sax moo gën ñu lay wax rek ni la bii nga xam ne tamit initiative la boo nga xam ne ñun ñëpp ñoo àndandoo toog kenn dóorul sa morom kenn xasul sa moroom kenn waxul dara sa moroom ñun ñëpp ñu gisante toog waxtaan xam ne dañoo bëgg a nekk benn pour Sénégal li nga xam ne moom la ñu fi bëgg la Sénégal a toujours été une très grande démocratie mais de suñu démocratie ñeewuma benn démocratie à travers le monde te yaa la xam ne ne amul benn continent boo nga xam ne demuma fa di wax waxu politique wala ñu fay la ay problème politique donc suñu démocratie la ñu bëgg mukk sax ci réew mi ni nga xam ne noonu la ñu waajur yi bàyyee du bëgg tamit sunu xale yi nga xam ni ñoom la ñu jur ñun itam ak suñu sët yi ñëw ëllëg du ñoo bëgg ñoom itam ñu fekk fi boobu démocratie loolu moo waral àndandoo bi te ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk tey ñoo toog ci biir salle bi amu ci kenn koo nga xam ni gëmoo gëmoo démocratie parce que ñun ñoo jëkk a nekk fii au pouvoir le parti socialiste mais xam nañu tamit yeneen parti yi lu ne xeex nañu ko taxaw nañu ko pour que benn yoon rek ñu bañ a salfaañe démocratie ba tey jii yaakaar naa ñu mën a toog mën a waxtaan nit ñi di retrouver wu sax parce que même ñi àndul woon démb ak bërki démb tey ñu ngi di jóg ànd ndax li ñu gis muy raam jëm ca ñag ba la ñu ne bëgguñu mu yegg ca ñag ba du ñu ko bëgg a dogale mooy du ñoo bëgg a continuer suñu réew mi dafa bëgg a continuer sa marche démocratique suñu réew mi dafa bëgg a continuer progrès yi nga xam ne def na ko ci fànn bu nekk nag yaakaar naa ne ak lu waay mën a wax wax dooni nguur gi fi nekkoon muy Benno Bokk Yaakaar liggéeyul dara ci Sénégal man dama cee bokk damaa bokk ci ci bi ci ñiy défendre bilan bi parce que damaa bokk ci ñi nga xam ne ñoo defar bilan ñoo ñoo ko ñoo ko liggéey léegi bi may ñëw ay éleveurs yi ñoo ma teeru am na ci kenn koo nga xam ne nee na ma sunu dëkk presque dina contribuer vingt deux mille litre de lait par par par par mois ci li Sénégal di consommer kon loolu liggéey la route yi ngeen di gis ñuy dem ak di dellu si aéroport yu bees yeeg tabax yeeg yépp am yaakaar naa ne loolu suñu liggéey la ñun ñëpp ñoo ànd liggéey ko kooku vraiment euh, il faut que ñu rafetlu ko di ñaan rek campagne bi nga xam ne ci la ñu jëm yàlla nañ ci dugg ak bisimilah rahmaani rahim génn ci ak am alhamdulilah rabbil aalamiina mooy que la bi nga xam ni moom lañu moom la moom la ñu nekk nii di confectionner fan yii yëpp te yaakaar naa ni léegi mu sotti. te ñu ngi ngi ko tuddee coalition bi nga xam ne moom lañu moom la taxawal nii ñu ngi ko tuddee jàmm ak njariñ jàmm jàmm jàmm bu àndul ak njariñ sax du neex waaye jàmm ju ànd ak njariñ nag moom dafay dafay saf suukar ah. dafay am lem kon nañu ñaan yàlla rek dugg ci campagne bi ci jàmm génn ci jàmm am nag les meilleurs résultats te yaakaar naa de man icône yi ma gis fii ci biir saal bi bu ñu taxawee ni mën nañoo mën nañoo gañe élection yi kenn waru koo weddi nañu ñaan yàlla rek cat bañ dugg ci ci suñu benn affaire ba bu soobee yàlla bu le 17 la le 17 novembre ñu ni jàmm ak njëriñ yow la Sénégal waxal voilà